ñoo jóg nee na gars yi dañ naan gorom toog toog ni koy julli bu sëñ Tuubaa nee jaleñ nag mooy taxaw mooy wax nee na pay booba nag bu fa sëñ Mor Tour ñëwee dañ naan ko marhaban yaa say xombal Saadixu Cuun yaa ko jagoo moo tax mu siiw ne yaay borom maanaam jëmmi murid Saadix yaa ko jagoo yow sëriñ Mor yaa tax mu siiw ndax sëñ Tuubaa ne ko murid Saadix loolu nag kon melokaan la wu rëy euh, nga ne lu rëy loolu maam bambaa fay ngay fale bambaa la fal ngay fale yow marxaman seydu xombal fal nu fi yow fal nu feneen biteeki biir fal nu ko yow nga xam ne sàkku ci ak palu goog biir fal ki palu biti loolu kon wane na cër bu rëy bu mu am ci diggante suñu borom muy gaay yi baax yi nañ ko xamee ngir yéegal ko ko Sëriñ ko waaye cër bu rëy bi mu amit ci ràññi ko ci melokaan bu baax woowu nga xam ne jagoo kon day mel ni jëmmi ak murid ci boppam mooy pas-pas bu dëgër mooy yitte ju rëy mooy ak dogu ak murit de su ko silwiseel maanaam di ko jéem a moderniser ak di ko jàppe ni nga ko déggee déedéet murit du ay caaxaan murit jëf la dogu la yitte la mag ñi dañ daan dox fii ba gànnaar nga bu pepp kolkolu cere lañ daal jëfandikoo mag ñi am na ci ku génn tàggoog sëñ bi mu ne ko ba ëllëg mu génn jaan matt ko mu ne ko yaa dof sama sang bi dama ba ëllëg nga dem a jéem a matt bu ma dudul delsi du ma wax ba ëllëg pas-pas bu dëgër boobu la la la mag ñi amoon seen diggante Serigne Touba dogu googu lañ amoon ci wóolu ko doyloo googu ñu ko doyloo ci jox ko seen bopp ci ak wóoru ak bëgg ko loola mooy pas-pas bu dëri bu rëy bi jariñ nit ci dox jëm ci Serigne Touba tam nekk dëgg gu wóor ci moom ak murit du lu ñuy falaa falaa ak murit jëf la waaye bu fekkee ne mboolem fu ñu teg jëf ju baax nga bëgg koo weccee ëskay bëgg koo weccee sëñ bi amul morom ak fasaaleeg maa ngi sa ginnaaw te doo jëf yoonu murit yoonu jëf la sëñ Tuubaa nee na ca bokk ca laa bokk te sa dara néewu ca ba bisu payi ko kon nit ki bu bokkee ci mbir euh, bokk ca di ca dox la cay wone melokaanam wuri mooy mu xam fa muy jaar ak fa dox kon loolu day mel ni jataay bii tey jataay la bu yaatu wax naa ko sëñ Masamba maa ngi la koy fàttali waat ak njabootu sëñ Mor Thion gis nga ku sa maam gis sëñ Tuubaa bokkul ak ku maamam gisul sëñ Tuubaa ku sëñ Tuubaa gërëm sa maam bokkul ak ku sëñ Tuubaa gërëmul sa maam toll nañ ci jamonoy communication nag ak ku am barke wut ku la waxal man de kenn mënta fexe ba ma ne sa maam ne te tegaloo ma condition yu wóor a wóor mooy indil ma mbind mu wóor gëstu bu leer ñàkk dëggu googu nag waral na bët bu set nga gis ko abbu prime jëfi magi maami jàmboor dem yóbbu ko ci kër jàmboor ngir ndax booy wax ngir ku la musal dara wax dëgg dalay jafe moo tax bu la sëñ Tuubaa di liggéeyloo li muy jëkk lijjanteeg yow day fexe ba la ngay juuti fa béréb mu jox la ko ba boo mënta wax dëgg noppi waaye gëstu bi des na yaatu war naa yaatu boo demee tey man tey laa xam ne cuuneen gële ca saam cuuneenu sëñ Mor cuuna te wax naa leen ko yéen a ngi lijjanti leneen loo xam ne gën a gëstu lii ko waral boo leen ko defut gis ngeen seen seen seen ndabi maam yii dabe ndab yii nit dana ko abbu firil ko maam yi keneen te coono te nit bu amee lu ko doy da koy jàpp gis nga gaay yii di contre bañ ko amul sëriñ bañ ko toppee dañoo amul ku leen topp amuñu ku leen siyaare amul ku yoo seeni sant te bëgg nañoo dund te financement jeex na bu dee Arabie Saoudite moom bu yàggul laa a Madinatu Munawwara Mohammed Ibnu Salman dagg na ko benn financement amatul mënuñoo musati dara moo waral ñu ne ci ginnaaw écran yi di saaga naan barke nangam kenn du topp kenn toog muy dox day jeex toog muy dox du jeex day gën a avancé fu ak kàdd di doxe ngeer di fa dox ak ëkk di fa dox rab gu sëñ Tuubaa laal di fa dox ngi gis gu Seex Rafal jébbuloo barkeel di dox ma ne kuy fexe ba ak ngeer ku ngi gis ak ëkk di dox koo gërëm maamam gërëm baayam deret ja ci daw mënoo tee barke di ko topp ku jëfal yàlla yàlla fay la loolu waxi caaxaan dong la les bienfaits ne jamais perdus jëf ju baax du réer inna allaha la yudiu ajral muhsinin mënoo sa maam di liggéeyal sëñ Tuubaa ba mu ne ko jërëjëf na ko jëf mu fàggu ca Serigne Touba coonob àllaaxira sama waa kër tàggoog moom sëñ bi nangul ko ko diggeel ko àjjana ju leer benn waaye dala xupp naan àjjana yàllaa ko moom ngay yox yoxi yooyu ñàkk fay demunu ko weesu sëñ Touba mi wax a gën a fort te moo ko garanti ku am lu wóor da koy téye te mooy suñu ko ca xam kon noo ngi nuyu njaboot gi fi nekk sëñ Maam Mor Cuun xalifa sëñ Mor Cuun ak sëñ Mor Cuun xalifa sëñ Caat Cuun ak sëriñ Modou moo Modou Thioune xalifa sëñ Naar Thioune noo ngi siyaare njaboot gi yëpp ginnaaw jataay bi kilifa yaa ngi toog te kul yeneen yu ca war a toppaat noo ngi am mbégte ci fekkee gi mu ko fekkee ñun sant nañ ci yàlla ci yu bari ndax mag ñi moom duñ caaxaan mag ñi moom ku leen am am nga liggéey wut tey am nga liggéey wut ëllëg kon nag barke bi ak jëf ji ak taxawaay bi yàlla na ko yàlla gën a yokk noo ngi am mbégte ci ci jataay bi bu baax a Euh, noo ngi nuyu kon sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall moom Cheikh Mamadou Fadal xaadimu rasul ñaan yàlla suñu borom mu mu mu yàggal ko te te wéral ko sëñ Mbaye noo ngi lay sant bu baax mbokk yi sant nañ la ci taxawaay bi taalibe yëpp sant nañ la ci taxawaay bi ndax sa yitte ci bëgg lu baax ak sa dox yi noo ngi feddali it suñu kóllëre ak waa kër sëriñ Mor waaye sëñ Massamba yow sama sas wi na ko dégg bu baax a baax waaw ndax kat euh, ku sëñ Tuubaa wax ne murid saadix nga moom ah, man gis naa kum bind na ko ilaa murid sadiq waaye nag wax ko ci làmmiñam na ko diw murid sadiq ah, dajeegu ma ak moom fu bari de kon nag loolu moom la ca yéemoon Cheikh Rafal ba mu naan murid sadiq ci gémmiñu seen Bamba loolu loolu loolu defe naa xissa yi danañ bari nettalikat yi danañ bari waaye ah ku ko abbu dey wax ko feneen dana dana jafe ndax sëñ bi moom léegi-léegi nit ñëw mu wax ko leneen lu bokk la doxin woowu kon noo ngi leen ciy gërëm bu baax ñoo leen di sant bu baax na ngeen nu balaax. tey ñoo ngi leen di nuyu. ca di leen ziyaara bu baax. ci turu njabootu euh, Ibrahima Baye Ibrahima bu Jóob gépp waaye nag ci njiital ki nga xam ne moo na ci bopp bi muy Serigne Modou. kaddu yi nag kàddu yi gàtt lay doon ndax arab day wax ne afdalul kalaam maa qalla wa dalla arab day wax ne wax la ca gën mooy la gàtt ca tegtalu nit ñi mën caa jariñu kàddu yi weesu wut kàddu sant ak ngërëm kàddu sant yooyu ak ngërëm nag njaboot gi ñëpp ñoo maase di ko sant njabootuk sëñ Mor Cuun gépp waaye nag di ko teg ci loxol sëñ Mbay Mbeng mi nga xam ne xalaat bii biñ ko amee jël tudde ko Baay bu Jóob ñu naan ko Baay ibraahima Jóob muy kenn ci njabootuk sëñ Omar doon jàmbaar doon jàmbaar joo xam ne yaakaar naa ne xasida gi doon yëkkati muy muqaddamatul amdah ak jës boog mawaay bu bokkoon na ci li nga xam ne fu mu a teew ci barab dana ko fa yëkkati ma waral yëkkati gi am solo ndax nit dafa bokk ci leen koy fàttalikoo mooy lam gënoon a miin di ko def saa yu fi jugee ñu di ko fàttalikoo ko ci loola sëñ Modou wax ne muy Modou Assane Bousso bi nga xam ne moo na ci njabootu gépp nga xam ne muy am kaddu yu muy yëkkati muy kaddu sant kaddu yi sant yi ak gërëm bi mu ko jiitalee ci njabootu sëñ Mor Thioune gépp ñi nga xam ne ñoo na ci bopp bi ba ki ci mujj nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne da ngeen def jëf joo xam ne lépp luñ fa mën a indi wala ñu def ko amuñu luñ ko fayee. ndax ki ngeen ko defal da doon kenn ci biir askan wi waxuma ci askanu kër Sëñ Omar Diop waxuma faneen waaye askanu mboolem tépp koo xam ne dangay ngay wuyoo Diop wala nga wuyoo cuun wala ngay wuyoo Guèye Ndiaye bàyyi bu mii kenn la woon ci biir ndax fu waay mas lu waay masa xew xewle boo ko fa jiituwul du la mu jiitu la fa loolu la daan doxe li sëñ Gana Messere doon waxtaane fii muy murid saadix bàyyi bu murid saadix la murid saadix mooy koo xam ne da ngay jébbalu ci kenn warmaal ñëpp ku ne xam ne ne kër Sëñ Omar la yaakaaroon fu mu mas a dem warmaal nag kilifa ya murid saadix mooy kiy jébbalu ci kenn warmaal ñëpp bàyyi bu nag murid saadix la woon murid saadix am googee moo waraloon lenn lu mas a bëgg ci àdduna mu idil murid laa yuridu fil murid ilal wusula naajiyan min al marid ab murid fokk fekk rek egg ci yàlla la bëggoon nekkoon gi mu nekkoon ci biir kër sëñ Omar rek doon liggéeyal sëñ Omar waaye yemale ko woon ci biir kër sëñ Omar képp daf ko yemaloon ci mbooleem bunti kër sëñ Omar yi ndax fu ngeen dem ci tubaa fu ngeen fa sëgg ñu ne Mbàkke wala wala Jóob wala Njaay xam nañ njabootu kë njabootu kë kë kër Ibrahima bu bu Maama Njaay mi Faalim Njaay xam nañ ko ñun ñoom ñëpp xam nañ ko loolu nag la waral mooy dañ koo jaay ba jënd ko kon ñu ngi sant ba ak gërëm di xamal ne. yéen ndaw ñi nga xam ne yéen njabootu Mame Ndiaye Fara mi nangeen góor góor bu baax seen i baay jaar nañ fi de ñii fi nekk tamit wuutu seen baay liñ wuutu seen baay ña nga ca sëñ Cheikh Mbacke dana woon wa alal xalaf an yasuuna asaara salaf ñi wuutu nan sàmm ndonoy nan wuutu ndonoy ñi wuutu na boo koy sàmm da fekk fa ma ngi tegoon seen tànk daan ko sàmm nga di ko sàmm mooy fu daan def ak lu daan wax ak lu nu daan jëf ak lu nu daan lijjanti nga jëm daa teg seen bopp Modou Assane Bousso mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi ci la nekk alxuraan nee na woon xalfu ak xalifa ñoo am xalfu mooy ki wuutu baayam ba noppi wala wuutu ay maamam ba noppi la baayam ak nekkoon dara dëkku ca dalu ko moom Modou mi xalifa nag mooy ku fees dalli see su baayam ak i maamam nag ñoom ñi nga xam ne mooy njaboot gi ñi xam na ne lépp loo xam ne seen waajur yooyu nekkoon nañ ci noonu rek fa seen yéene nekk ñoo ngi sant sëñ Mbaye Mbengue bu baax ak njabootu sëñ Mor Thioune gépp dina leen xamal ne dangeen ngeen a def loo xam ne ñoom mënuñoo wax kaddu lu ëpp lu dul jërëjëf lu ëpp lu dul jërëjëf te jërëjëf nag ki def ki def dara dong lañ koy wax sëñ Tuubaa nee ne woon fa haysuma ahsana sa wil ihsaani fahmitu bila tawaani ne sëñ Tuubaa ne nit bu la defaree dara fam la ko defaree nee na nee na ko fa jërëjëf kon sañ sëñ Mbaye Mbengue jërëjëf jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah